bailar. retour sur le plateau de yeewu leen 8h57 mbaa jàmm ngeen fanaane yéen ñii doog a xëy ba àndandoo ak ñun ñu ngi fii ca fajar ba tey eh, la ñu dooroon àndandoo ak yéen oustaz Pape Anne docteur Massamba Gueye Mado Alfi ak man meek ñu ci àndal ñëpp ñu ngi leen di gunge tey nag eh, dañuy tukki eh, dem dëkk bu ñu naan nangaan nangaan nag Bessel wax na ko dafa bëri nangaan n'est-ce pas. <laughs> ñaari nangaan ñaari nangaan dafa am comme ni ko waxee rek Pape Cheikh dañuy dem nag tey nangaan campement ne Ndangaan campement sànq ci wax ji ca njëlbeen waxoon naa leen ne ab tubaab moom moo ko sànc waaye lu tax ñu tuddee ko nag Ndangaan mooy ki nga xamante ne moom moo tudd Samb da doon wër île maanaam ci géej gi la dëkkoon da doon ñëw nag ba ndàngaan Ndangaan nag moowu séeréer la mooy fi nga xamante ne gaar bi fa lay téere téere foog naa noonu la de ah. gaar ba ah, gaal gaal gaal gaal laa wax waxuma pirogue man de waxuma pirogue gaal laa wax ah, <laughs> am nga xam kon moo tax nag ñu tuddee ko dañuy dem nag euh, rek euh, góor gi nga xamante ne moom nag fekkee woon na loolu ba tubaab bi di ñëw di fa sanc ak la nga xamante ne moom moo fa jot am Pape Cheikh ndàngaan Samb bi bu ñëwee fi mu doon teer gaalam mm-hmm. moom la ñuy wax ndàngaan Mbacké ñan sanc dëkk bi. ñu sanc dëkk bi. Mhm. damay ñëw ñu sanc dëkk bi ay tubaab lañu. Mhm. mais waa nguur gi. doon mhm. na fi nekk mais euh, tubaab yi ñoo ko sanc. ba ñu ñëwee ci dëkk bi. dama dem dañu dem Juwaala. tabax fa nekk bu mag. mais fekkee xaalis bi ñu indi woon di ko jox rab yi rab bañ. tubaab bi tubaab bi tabax néeg ba bi pare nga gisatu ko suuf ba mu fees amuñ ci ñu ñëw fii bi ñu ñëwee ci jamaane bi ñu ñëwee li ma fekk fii boobu ken nekku fi man kenn rek maa fi nekk yow kese waaw man moo ne jóge ak waa Ndakaaru ben jóge tubaab bu jóge France mhm. mu ne ma ana ñi fi ne ma ne maa fi ne mhm. mu ne lu tax nga dëkk fi ma ne damay liggéey mu ne liggéey dina tax ñu dëkk fi ma ne ko bi ne lu ngeen di wax mhm. ma ko ne dama koy laaj li tax mhm. ngeen dëkk fi mhm. tubaab bi jëli saak bi mu yoroon génn fi carnet bu mag am na enseigneur bu jóge woon France lu yàgg dem juwaala bugg faa def rab yi bañ xaalis buñ ko jox mu bañ delloo ko. rab yi bañ xaalis rab yi bañ fi mhm. ñu ñëw fii. Mhm. bind leetar. Mhm. bind leetar. def ko ci mbuus def ci xaalis. taxaw fii sànni ko ci géej gi. def tantampale. mais bu setee bu ñëwee fi xaalis bi ci biti. mu dolli xaalis bi. sànniwaat ko ci géej gi. dem fanaan ba boset ñu ñëw fekk fi xaalis bi ba ñetti yoon ñeenteelu yoon bi nag gisul xaalis bi keroog da samp bor na fii ci nga taax mi waaw taax bi taax bi foofu moo nekkoon kër tubaab bi taax bi moo njëkk fii ci campement Ndangaan mhm. gi mhm. am na chef de canton yi daan fi nekk nag ci biir lañ doon def chef de canton bu falu mm-hmm. mu sampal ko ker ci biir ñu boobu kenn dëkku fi mm-hmm. gannaaw waa bi mu ñëwee nag mm-hmm. fekku fa xaalis bi mu bi carte bi mu ne waaw palmarès non palmarès non lan la ma ñu wax ko ne xaalis bi ñu joxoon rab yi de dañu bañ mun loolu moo tax mu ne dangaan sont d'accord ndangaan d'accord nañu li nga nag lu ne fii waaye duñ defalti dara comme rab yi d'accord nañu pour dëkk dëkk fi sambu nekk fi li bi yàgg sambu ñëw fii dafa bugg a dëkk fii euh, fii ndangaan lan mooy seen activité fii ñii hmm. da ay touriste rek hmm. la ñuy yóbbu fii fa la ñooy mbaalkat yi hmm. fa dëkk ba ndangaan sambu foofu xam nga moo am ay ñëw min ka mhm. mbaal mhm. waaye ñi ay touriste yi ñoo touriste yi ñoo leen fi bàyyi jërëjëf kon nag papa kontaan nañu torop ci histoire bi nga xamante ne rek waxe nga ñu ko ci Ndangaan campement ndangaan campement la tudd kon fii. waaw euh, parce que nit ñi dañuy ne ndangaan ndangaan samb ndangaan campement mais ndangaan euh, bi ñu dem euh, moom mooy ndangaan campement ndangaan campement nag maanaam ay tubaab ñoom ñoo ñëwoon bëggoon def foofu ay kër dëkk fa mënuñu fa dëkk fa ni ñu jëkkee nag Joal Joal la ñu njëkk a dem. Ah, jiwaalo la ñu dem jiwaalo la ñu dem bi ñu jëmee jiwaalo xam nga dafa am bërëb bu ne dañuy naan dafa am lu ko moom. Mm-hmm. loo xam ne ñoom ñoo ko moom te dañuy naan géej dafa am borom. Mm-hmm. ñu demee dañu jël euh, d'abord balaa ñoo dëkk dañu jël xaalis di ko doon sànni géej gi maanaam di neexal rab bi mhm. pour rab bi permettre leen ñu dëkk foofu ñu koy def géeju Joal bi di euh, di rejeter xaalis bi di ko rejeter di ko rejeter ñu sonn loolu nag ñu daal ñëw nag bandangaan campement bi ñu def ko benn yoon mu rejeté ko def ko ñaari yoon mu daal di koy rejeté ba ñeenteelu yoon bi nag bi ñu xëyee daal di ñëw xaalis bi ñu doon sànni ci géej gi euh, gisuñu ko ñu soog a xam ne géej gi ak euh, bor rab bi ab sattan nangu na voilà ah. pour ñu installé foofu ñu daal di fay dëkk loolu moom moo waral tey ñu daal di euh, dëkk li nga xamante ne moom mooy ndangaan ndangaan samb mhm. gis nga li nga xamante ne kër bi ñu njëkk a sanc tubaab bi kër bi mu njëkk a sanc ci wetu tefes bi la ko sanc mhm. parce joxoon xaalis rab xaalis bi foofu la ko doon sàndi mhm. teg ko foofu mhm. mu dem nag xool ba mu nangu ñu daal di jël nag samp foofu kër gi ñu dem ba a chef de canton bu ñu doon fal foofu lañ la doon fale foofu la doon maanaam defaral sa néeg mhm. boo xam ne néegu chef de canton lay doon mhm. nga daal di dëkk nag ci biir tourisme bi commencé di ñëw nit ñi commencé daal di ñëw di indi di jaay mais ba tey dañuy faral di wax naan li nga xamante ne nag moom mooy géej googu dafa am loo xam ne da koy bañ mhm. waaye ñoom boo nekkee gën nga ñëw bu fekkee dañ lay traversé loo nga dem feneen ñoom ñi yor gaal yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ay mag xam dëkk ba dina am loo xam ne dañ koy def pour euh, benn gàllankoor. du am protéger la quoi. waaw d' accord maanaam yow ba nga fa am na lu ñu la defal. waaw am na lu ñu defal balaa ñoo traversé. déet du lépp la wax kenn dul wax waaw daal lañuy du lépp daal la ñuy wax <laughs> waaw donc yoon la fi ñu toll ñu gën a bàyyi xel ci dëkk yi nga xam ne dafa bëri histoire jaratul sax ñu dem vacances feneen <laughs> non jaru ko waaye xam nga euh, yenn saa yi moom euh, ñeme xel moom mooy tax nit génn bu biir kër gi uh-huh, te li mu soxla mi ngi ci biir néeg bi uh-huh. euh, dafa am loo xam ne boo ko xoolee ci turu dëkk yi boo xoolee tur bi am baatu tubaab rek uh-huh. na nga njort ne Euh, nit ñi ñi fi dëkkoon wane nañ ne kii bokkul ci ñun mm-hmm. ndax loolu la ñuy wane ne bokkul ci ñun mm-hmm. bi ñu amee seen dàngaan sàmbu ba nga xam ne mooy seen cosaan mm-hmm. dañ koo ne ko teeru la waaye bi campement rek la campement mooy fi nga xam ne da nga fay dal ngir dem maanaam mayuñu ko moom mu yàgg fa lool maanaam amu fa cosaan maanaam sosu fa dara léegi boo xoolee euh, ñi nga xam ne ay chef de canton lañ nga xam ne fonction yi ñu am colonisation bee ko indi foofa lañ leen di dalal bokkut ak fii buuru cosaan yi dëkk bokkut ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci ñoom moo tax dañ lay may nga dànd leen mm-hmm. dana nangu nag nga ñëw ci seen wet waaye dañ lay may nga dànd leen moo tax bi nga ko waxee mën a la gis nga ñële mm-hmm. daankat mm-hmm. sàmboo nga nële ñële ñooy ñoominkaay yi moom dina ci ñëwaat dina waaw dinañ ci ñëwaat vendredi comme comme ni mu ko waxee rek euh, maanaam boo xoolee ba tey ji campement mhm. euh, campement boo dee boo demee euh, maanaam mun nañu wax ne mun nga fa retrouver xeet yëpp mhm. xeet bu ne mu ngi foofu mhm. ku nekk da nga fa ñëw di daan sa doole te mu nekk nag loo xam ne ni maanaam ñu ngi yellu ci wàllum activité loo xam ne ay wàllum jaay aar la tubaab yi dañ fay jaar noppale ko ci waaye ki nga xamante ne moom mooy sàmm moom nag moo njëkk a découvrir fi nga xamante ne moom mooy ndangaan campement ak ndangaan village ah, indi sant bi ci tur waaw loolu moo tax ñu naan ko ndangaan sàmb ndangaan moowu séeréer la mooy fi gaal bi di teer waaw teeru voilà donc loolu moo tax nag tey ñu demaloon leen fi nga xamante ne moom mooy ndangaan sàmb par jërëjëf Bessél ah euh, macha allah ah. macha allah la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu wax Cheikh bi ko Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum xalifa bi gënëjee ah. Serigne Cheikh Kandji maa ngi nuyu waa Jurbel ñëwoon seet si ko ñuy waxtaan ah. ni ko Serigne Babacar booleeg Serigne Cheikh ak mm. cosaan la ñu waxtaanee mm. Cheikh dafa ni ko gis nga yii cosaan yi jël ko denc ko ci coffre-fort mhm. moo gën jël xaalis di ko fa denc ndax suñu njaboot ëllëg mën ci jëriñoo moo tax yii besel di def nii jël ko denc ko moo gën ñuy jël xaalis moom sax patrimoine la di besel waaw mais parce parce que dafa am nag lu ma dal sama dernière horaire bi ma dem ci ji damay toog di ko xalaat sax dama naan yàlla rek oh, non non du ma jooy léegi bàyyi naa jooy <laughs> waaw parce que Pape Cheikh dañu traversé ay minuit di traversé gaal ci diggu géej gi dama jékki-jékki rek sama rongo ñu sotti ma ne est que lii jar na ko mhm. mais nga xool tamit nit ñi niñ la buggee ak niñ lay encouragé mhm. da nga naan lii jar na parce que ay une heure du matin ay minuit ngay jaar bañ a traversé géej gi guddi. Ah, nga xaw a tiit mais liggéey bi jaral la ko ak nit ñi. métti la trop loolu la wax Mouhamed Ndiaye barki saa yoo xalaatee ni waroo ñëw rek na nga xalaat ñi nga xam ne ni ñoom ñoo tax ngay liggéey boobu ba tey mm. maanaam yéen ñi nga xam ne ni yéen a sopp li ñu nekkee ba tax may wax naan defewuñu ko ñun ni ñu ko bëggee mm. waaye yéen ñu ngeen ko bëggee rek la ñu koy defee ci télévision Futur Média alors euh, ñu ci profité nag euh, di ndokkeel di ziar bu baax suñu euh, sang boobu di Serigne Maodo Serigne Maodo si ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax moom nag suñu xarit nit la ku ñu fonk lool sax. dafa baax mbaax mbaax moom la yem. waaw nit ku baax a ndax bàyyam Cheikhul Hadji Abdoul Aziz da baax. ku dee dañ lay suul suul ko suul. wallaahi macha allah mooy taw la job nag ci mbaaxam Sëriñ Maodo eh, baax soosu leen itam ñu xarit ci nga ni eh, ñu ngi ñuy seetaan ca eh, Tiwaawan àndandoog ñun ci télé bi